waaye maa ngi leen koy wax keroog bés penc ma Sodom moo lay tane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 amoon na benn bésu noflaay yeesu jaar ci ay tool yu ñor fekk ay taalibeem xiif ñu daldi fàq ay gub nag di lekk farisiyen nag gis ko ne yeesu gisal say taalibe ñu ngi def lu jaadul ci bisu nooflaay bi noonu yeesu tontu leen ndax jàngu leen la daawuda defoon ba mu xiifee moom ak ña mu àndaloon xanaa yëgu leen ni mu dugge woon ca kër yàlla ga gis fa mburu ya ñu jébal yàlla mu daldi ko lekk fekk jaaduwul mu lekk ca moom walla ña mu àndaloon sëriñ sa rekk a ko sañoon a lekk te ndax jàngu leen ci yoonu Musaa ne sëriñ sa ca kër yàlla ga tëraluñu bisu noflaay bi te tooñuñu waaye maa ngi leen koy wax am na ci seen biir ku sut kër yàlla ga mbind mi nee na yërmande laa bëgg waaye du leen di saraxi mala su ngeen xamoon li wax jooju joojuy tekki kon du ngeen teg tooñ ñi tooñul ndaxte doomu nit ki mooy boroom bisu noflaay bi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 booba ñu nil ko ku rab jàpp mu gumbatelu Yeesu faj ko ba ku luuki di wax tey gis noonu mbooloo mépp mu naan ndax kii du sëtu Daawuda bi bi pharisiens ya déggee loolu nag ñu ne kii ci kàttanu Belsebul buuru rab yi lay dàqe rab yi This fellow drives out demons. waaye yeesu xam seen xalaat ne leen mu xeex boppam tas te dëkk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 noonu ku farul ak man yaa ngi may xeex ku dajalewul ak man yaa ngi tasaare Yeesu teg